arsala yabal na lana jeme ci nun al muhtara tañu tan habdan bi mu di ab jam muqaddaman bi di jital qalilan xalilan mu di ab xarit habiban tey ab soppe fa'iqan bu di kawe jumla ta tamli mboolem tànneef ya mu ne yàlla ci coobareem lay jëfe da ko nak mu tan yonante bi jital ko muy xaritam di soppeem mu teg ko ci kaw ñëpp ñëpp mu féete kaw ñëpp ñëpp ñëpp féete ko suuf mu def ko nag muy ndawam mu jëm ci nit ak jinne li fekk aduna tukki moom rek mooy doon ndawul yàlla loolu daa sopp yàlla nee na lahu ñel na ko addahra ci jëpp jamono am daax yi samay tagg xadiiman may ab liggéeykatam muqaatiban bi aji waqanteeg moom wan xaada te wammatu na lii jëm ci man fii am daaxihi ci ay taggam arbaxul xilli gën jaar tonawuy la lew gën jaa tonawuy la lew ma yonante bi moo yeyoo mbooleem samay tagg mboolem samay tagg ci moom rek laa koy jëmale mu ne te ci tagg yooyu may jëmale ci moom ci dama yàlla xëppe lépp lu lew te teey te mataamu ko kon nag yonante bi sama tagg yépp ci moom lay jëm te maa ngi waxanteeg moom ci biir tagg yi naa ko laka ñeel na la al mu'jizaatu mu'jizaat ya al xurru ya doy weex al xurru yaa xayra sayyidin yow ngeen ci ab sang alayka yàlla na doole nekk ci yow salaatullahi taralug yàlla yaa jaamiha shamli yow aji dajale mbolo ma kon ma ngi waxante ak mom nako yow day bi la yàlla dala bolé xéti xeeti yo xamné xam ne dañoo leer nañ te lépp lu tasaaroo won ci yow la ko yalla dajalee manam muy lépp lu yàq ci yow la ko yàlla defare man na doon batay xeet yu baax yi nga xam fa tasaaroo ci yonante yeeg ñenn ñu baax ñëpp yow yàlla dala ko booleel jox la lépp tase ci sa jëmm mu jox la leneen nag loo xam ne nekkul ci keneen ne ko maa ngi lay ñaanal nag yàlla di la saxoo dolli laqad kunta nekkoon nga sabbaaran di ab shakooran tey ab santaakon waa naasihan aji laabiire alayka yàlla na doole nekk ci yow salaamullahi jàmm yàlla yaa maaxiyal jahli yow aji farji réer mu ne ko yàlla moo la def nga boole muñ ak sant te yooyu yaar yàlla daa taamu ko ko boole ba wax ci alxuraan ay yoon inna fi daalika la aayaat li kulli sabarin shakur mu ne ko yow nag yàlla moo la def nga doon ab muñkat doon ab santkat doon ab laabiire kat yaanu tàggaleeg réer ak xamadeeg lépp li ko nuru ba nu xam nu ni def ba sunu boroom kon nag yalna yalla sax dina dolé dolli jamm alayka llahi mo nekkon ci waywe fi nak alayka llahi ci waywi mo ci nek laka ñel na la al mu'jizatu mu'jizat ya al qariqatu ya di way allati ya nga xamé ne atat dikke won biha ca ñoom qablu ca bu jëk min ghayril mira ci lu werante jumlatu rusli mbolem yonante ya mu ne ko mbolem xeyati mojisat yi nga xamne yonante yalla jitu won dañ ko don feñal yalla ko feñalon ci ñoom rek ndax ñu xalal la bala nga dik waye ci deug deug say mojisata bepp mojisat bo xamne ab yonante mas na ko feñal rek sa mujjisaat la yonante booba dalaa jiir di la xàllal bala ngaa dikk rek waaye mujjisaat yépp yépp yépp say saata loolu nag booy jàng téere sëriñ bi ni ki booy jàng Ahmad Suleymaan yépp da ngay dégg da ngay gis bépp mujjisa boo xam daañu ko tuddal ab yonante rek mu delloo ko ci ngën gi mbindéef ne ko yaa ko joxoon yonante boobee asarxu ndañeen taaniya boo defee asarxatu mu ànd ak taa muy benn ndañeen taan maanaam garab gu rëy rëy asarxu nag muy mbooloo asarxu garab yu rëy yaa rëy xadd saarat dox nañu bi bi saaxin ci ab peer laka jëm ci yow bi daawatin ci ak woote kaman shaqa niki xare badrun weer shahidun wu di aji seere tàmm foofee bil fadli ca ngëneel la xeeti moo gisaat yi waxoon yonante bi ne ko yàllaa ko feeñal ci yow da caa tudd yaar benn bi mooy xaral gi ko yàlla xaraloon weer wa mu def yaari gaal te fu ñu laaj rek ñu ne gisoon nañu weer wi kay mu xar def yaari gaal muy kiimtaan gu rëy ba alquran ne iqtarabati saaxatu wan shaqal qamar ak nam daan wooye garab garap lu bokk ci garab ne ko kaay wuy si garab ga mu batu di diri peeram jëm si ci moom ba ak si ci moom bu dee lu bokk ci garab ni ki bànqaas mbaa meññet mu daanu baax ci moom ni ko yeso woon ci jadbul qulub andi woon nañ ca ay nettali yu yaato yaatu yu ñu mën a jàpp liman ñeel na yàlla mi nga xam ne wàcce na al aaya laaya ya allati ya nga xamee ne xottani wommate ngama bihaa ci ñoom kitaaban mbir mu ñuy azizan bu di aji tedd bayyana bab leral na al haqq deug bil fasli ci tekkale lisaniya sama lamiñ wal awsal ak ciriya habdan madi ab jam habdan bobu hal la lo ñel ko bikum ci seen daraja wa awda'atuhu te denk nako ruhi sama ruh wa nafsi ak sama bakkan mahal fi'li and ak jëf ja mu yonante bi ci sa daraja lama yalla defal alquran mudima wa ma rek jeme ca mom ci sa daraja lama yalla maye sama lepp jëm ci mom sama ak cëri ci des lepp jeex ci mom tak ma denk ko sama lepp muy rogi ak bakkan bi ak jëf ji bayiko ci man ci sa tere dal lama yalla maye alquran di ma ma dem ba jeex ci yalla tak tak des nak faaw ci desu yalla ga diwi lahu ñel nako ak dehra ci jëpp jamono niyaati sama yéene waa ilmi ak sama xam-xam wa xidmati ak sama liggéey wa ruuxi ak sama ruu wa jismaani ak sama yaram wa kulli ak sama lépp bilaa sukkul ci lul bokkaalik dara mbaa ci lu dul desal dara dara baatum nag bilaa sukkulin jooju dama cee topp rek ñi nga xam ne ñoo firi téere bii ci weneen lang bu bokut ak arab waye bu ma dee xol ci kay yi nga xamé né ci lañuy ñuy baati arab yi moom gisaguma ci baatub ak tukkulu fu mu fay firé luy nuru bokalé ak dara wala ñaka desal dara way wi da feddli la waxon ci yaari waye may yu ko yalla may ci dara ji yonent bi mu jeex ci yalla tak nga xamni dara génnut yalla moom la fet li ne sa borom day mom mom sama yene mom mom sama xam-xam mom rek lay liggeel mom mom sama ro mom mom sama yaram mom mom sama lepp duma ko booleeg dara lu mu tut tuti te momit lool nak ni ci yi ngeen ji def mi may liggéeyal la anta yow al alxaliilu yaa di xarit ba al alxibbu kadi ab soppe yaa xayra shaafihin yow ngeen ji aj ramoo wa sharwaaka te sa ndend sa moroom lam yaxluqhu sakku ko bindu ko baaxin aji des xamaa juj aar na kulli sama lépp dafa waxante yonent bi ne ko ci dëgg dëgg yaay xaritub yàlla di ab soppeem yaa tinu te sama borom bi nga xam ne day des faw du jeex mukk mukk aaral ma sama lépp lépp sama borom boobu xam naa ne mësta sàkk ku mel ne yow te du sàkkati mukk mukk ku mel yow Harfulia ya in li mooy arafu ya yazuruka dana la siyaare min nii ci man xaysu ma kuntu fuma man di nek ya muhyi yow ya sama aji dundal fu aji sama xol wargu yi ak sama ro bil busharati ci ay mbégte za may boromuk taxagn dafa waxamteeg ngeen ji mindeef ne ko Fuma man di nek rek sama xol ak sama ru rek dila di ande ki ànd fuma man di nek rek sama xol ak sama ru mom yalla baxema ma gàttalal ma diggante ba ba sama xol ak sama ru ñew siyaare la yaxuddu dana lim dana wàññi mazaayaaka say ngëneel allati ya nga xamee ne lantiha déet ab laytal laxaa di leen ñeel madihi sama tagg allati wi nga xam ne alzamtuhu waralal naa ko waralal naa ko an nafsa sama jëmmi bopp bi saa yi ci jëf ga tagg yi ma lay tagg di ci jema wàññi sey ngëneel suma waxe waxee be sah luma benen tax na ni sax lu duma matal tag yoyu day luma warlu waral ko ci bop suma sama yau yow muy bor bo xam fu war di ko jema fay donte xamna ne duma matal warna dal saxoo laa tagg tagg woo xam ne day jéem a wàññi say baax baax say ngëneel ngëneel lu ma wax jàll ci leneen baax baax bu ma wax jàll ci beneen baax baax yi ngëneel yi duñu jeex waaye mayit duma sonn duma bàyyi yaqini sama wolu yaqini dana ma fegal tarka amdahi sayyidin baye tag ab sang kafani bop fegalé nama bi ci dara jam al baqi yalla ki aji dess dawi dulmi warom togn ga wala gay ak reer ga sang bi nga xamne ci dara jam lama yalla fegalé faw kacor tooñkat yeeg ñu réer ñu xamadi ñooñu sang boobu daal sama yaqiin jombale na ma may wàññi dara ci tagg yi ma koy tagg rawante na di ko bàyyee tagg sama yaqin kay toll na ci lu ma ko tagg-tagg rekk xeeb ko xalaatuma mukk sonn bàyyi tagg gi fu ma tollu koy damay gën yees gën jëm ci tagg ko gën a jëm ci yël ko yamini sama loxol ndeyjoor alayha war na ko daynu xabtin borub mbind xawaa bopp làq na maanaam mbind moom làq na ridon ngërëm bi xidmati xilli ci liggéeyal sama xarit dil madinati ki borom madina za hadiin mooy boromuk jub za hadiin boobu xaal la sama xarit bii di borom madina amel naa ko borub mbind ci sama loxob ndeyjoor bii mbind moo xam ne ay tagg yu ñu gërëm gërëm yu ñu sant sant lay doon ma jublu ko caa liggéeyal yàgg naa wax ne yonante bi daa ko ameel borub tagg boo xam ne fu ma toll di ko jéem a fay xam naa lu ma fay fay duma matal waaye duma sonn yi nag ci jéem gaa matal yu salli yàlla na dolli teraanga bi taslimin ànd ak dolli wóolu xale ka ci yow allazi yàlla mi nga xamee ne nafat dàqe na bii ci moom xabdatun ak nut min gu tukkee ci yow al ahadiya noon ya bi ram yi ca sànni ga yonante bi ca xarab xunenin ba jibboon na bar ci loxoom ci suuf xëpp ko noon ya ñu daw ca xare badar ba mu tibb pare ci loxom ci ay xeer sani ko yéefar ya, ñu tiit daw ba sunu worom nako ci deug deug sani wo man ma sani wa ma ramayta id ramayta walakin allah rama sëriñ bi ne ko yalla mi nga xamé ne mo la may nga tibbon tibb yoyé sani ko mbolom yoyé ñu daw yalla mom la ñaan mu lay at dolli teranga ak jàmm yaji uka dana la dikkal min nii ci man kulla waqtin ci wep waxtu wa saaxatin ak sépp sa ridaun ngërëm wa shukrun ak sant rafaqa yooyu al nañoo alxubba cofeel ga fil hayy ci yàlla mi aji saxoo dund te du dee mu ne yonante bi waxtu ne foo man di nekk sama ngërëm fekk la fa sama cant fekk la fa te ngërëm laag sant la lu ci nekk day ànd ak rek sopp la cofeel goo xam ne yàlla dong dong nga tax yu lii yàlla na dolli teral bi taslimin andak doli wolu alaykum ci yeen bi alikum andak seen wa ashabikum ak seeni sahaba. baqin aji des habaniya. kok maynama bil wahyi cewahyu ci wahyu ga melne alquran wahyu la adishit wahyu la yalla mi jeex te mayma alquran ji nga xamne moo la ko wax yoon wàcc ko ci yow yàlla moom lay ñaan mu lay saxala dolli teranga ju ànd ak jàmm yaag sa mbokk yi la gëmoon ak say saxaaba yu bashiruka dana la bégal albaaqi yàlla ki aji des bi xabti ci sama mbind karaamatan mbir karaama wa in kuntu ak doonte nekkoon naa daa na yin di boromuk sori xan ardil madinati wali suufas madina mu ne yonante bi lu ma sori sori suufas madina yàlla baaxe ma di la bégal rekk ci sama mbind sëñ bi yàlla defal na ko karaama yi bare bari waaye daa mel ne mbindam moom bokk na ci yi ci gën a yéeme ba mu waxal boppam ne karaamati xattu yadi fi xidmatil muayyadi wa kaana lii bil afyadi allahu muulil karami yuwajjihu dana jubale rabbi sama boroom kullama lépp loo xam ne laa uxibbuhu duma ko sopp li xëyri jëm ci kudul man bika ci sa daraja ad daarayni ci yaari kër yi ya jalibal waq yi yow aji ñodd ci karange mu ne ko muy ci aduna muy ci alakhirah lepp luma ci tabut yalla dama koy dakal mu jëm feneen jëm ci ñeneen te xamna ne ci sa daraja lama ko yalla defale yuwassilu dana agale li jëm ci man al baqi yalla ki aji dess bushaaraati naafixin mbégi aji jariñ bi ka ci sa daraja ak dëhëra ci jëpp jamono yaa das sabqi yow boroom raw ga wal fadli ak ngëneel la wal wal yi ak xejj ga yow mi yàlla may nga raw ñépp mu defal la lépp ngëneel defal la lépp lu di ak xejj ci sa daraja la ma yàllay sotteeli saa yu ne ay mbégam la waxoon ci way wee ci daraja yonante bi yàlla di ko dàqal lépp loo xam ni bëggu ko taamuwu ko way wi moom mu ne ci sa daraja la ma yàllay andile lépp loo xam ni xeetu mbégte la ci jamono ju ne yu dajjilu dana màggal kulli sama lépp kullaka sa lépp al yawma tey ma gadin ànd ak ëllëg wala uraate defuma gis ad dahra ci jenn jamono da wan yin may boromuk lot ba may boromuk yeexamtalu ba may boromuk dacc insha allah soob rabbi sama borom ma toll muy tey muy ëllëg ba faw sama lépp day màggal sa lépp xoolal waxi na ni mu réyee tey ëllëg ak ba faw fu ma toll sama lépp day sax di màggal sa lépp te bu soobee yàlla saa boroom liggéey bi ma lay liggéeyal su fasuma ci yéen yeexamtalu dara lu mu tuuti tuuti duma yeexamtalu duma tàyyi duma tàcc damay gën di jëm kanam rekk yi wakkidu dana feddli kulli sama lépp xabala xob bii buumuk sabak cofeel wa xidmati ak sabab liggéey bi man ci ki nga xamee ne xaada wàmmat na lii ñeel ma xayral maqaamaati ngën ji maqaama ya bi tay ci ak taxañ ci kàttanugu yàlla mi ma baaxee taxañal ma ma àgg ci maqaama bu féete kaw ci maqaama yi ci kàttanam googu ci la may baaxe it fu ma toll sama lépp di feddliku di gën a dëgëral sama buumuk cofeel di gën a feddli sama laxasaay ci liggéey bi xarful xaa i lii mooy arafu xaa xarajitu génn naa bi fadlillahi ci ngëneelul yàlla mimma ci lépp loo xam ne yi wabbixu dana tege yaraange wayan xoote dana jublu mu wab mu wabbixun aji tege yaraange li xaw min jëm ci aw nit faaraqoo nii ñoñ tàggoo nañoog man mu ne ci baaxug yàlla ak ngëneelam set naa faawu ci lépp lu mën a indi yaraange tey mbaa ëllëg noonu ya nga xam ne nag ñoo di nooni yàlla ak yonante te dëgmaloon ma te yàlla tàggale ma ak ñoom lépp luy xeetu yaraange luy tege yaraange ci ñoom rekk lay jëm xarajutu génn na bi fadlillaahi ci ngëneelul yàlla min kulli baatilin ci gépp neen ilal xaq jëm ci dëgg wal imaanu te gëm ga billaahi ci yàlla yar saxu dana sax mu ne yàlla ci mbaaxam ak ngëneelam moo génn ci lépp luy xeetu caaxaan ma génn ci lépp lu dul dëgg sax ci dëgg sax ci gëm gi nga xam ne moom la yàlla gën a taamu ci ab jaamam xasa inu rabbi mànga siini sama boroom mbaa ndam bi sama boroom futti xat ubbeef na leen lii ñel ma wa sax saxat te soril te soril na duniyaa àdduna wa oxra ak alaaxira wa barsaxun ak barsax li xëyri jëm ci kudul man al ada mune yalla sama borom dama ubil mbollem ay mànga sinam ba nopp nak musul ma ci lepp li lori ak alaxira ak barsax mi dox seen diggante mel kon dal yalla da ko bolel mbollem mànga siin yi aduna ak jox ko ba nopp nak lépp luy xeetu lor moo xam wu àdduna la moo xam wu barsax la moo xam wu alaxira la yàlla dàqal ko ko faw faw xud jàppal a shukra cant ga min yi tukkee ci man axda rafhin jàppuk yëkkati wa bashiran te ga dollee bégale bihi ci moom al mustafa ka ñu tànn yaa xayra haadin yow ngeen ji aji jubal yu shayyixu ko dana sampe maanaam samp ku mu bëgg samp taxawal ku mu bëgg taxawal yàlla yow mi nga xam ne yaay gindee yaay sampaka dëgëral ku la soob maa ngi ñaan nga nangul ma cant gi yëkkatil ma ko moom cant gi te naka warante bi dégg te nga dolli ko ca mbégte xarajutu génn naa maxal maaxi ànd ak aji far ji bi rabbi ci kàttanuk sama boroom minal ada ci lor wala yantaxi te du jublu nax wi ci sama wàll allazi ka nga xamee ne yatabaddaqu dana rëylu tabaddaqa bi maxnaa bara yàlla mi ma baaxe boole maag yonante bi ma ànd ak moom mu doon sama lépp ma doon léppam loolu tax na ma set wecc ci lépp luy xeetu lor tàggoog lor lor tàggoog man te kuy rëyloo ka wanewu feneen ngay jëm ak dëgmal waaye kenn kuy rëyloo ko wanewu duma dëgmalati xitaabuka sak wàqante yaa xayral baraaya yow ngeen ji mbindéef yi saxaadati moo di sama texe yu am minu dana wóoluloo kulli sama lépp yawma yunfaxu ca bis ba def na wal fi suuri ca bufta ba nu xolaat baatub xitaabuka day mel ne yonent bi ci boppam mu wàqanteeg moom loo xam ne moom lay wax naa ko ca laa amee texe ca laa amee mucc gu mat sëkk goo xam ne wóor na ma ne buñ taxawee bis penc gannaaw ba yàlla walloo bufta bi itam sama lépp mucc na teewul nag mu ak moom ne ko xadabta dóor nga mbaa dàq nga alxidaa noon ya xan yi walis bu ne xadaba bi sayfi mooy wa sax te nga soril man ña nga xamee ne taxaw beew nañu ila gayrina jëm ci kudul nun wal kullu te kenn ku ne ci ñoom xad kaana nekkoon na yàbb laxu di rëylu daa bàyyi ko ci Baliha, yablahu momit bi mahna takabbara mu ne ko yaama ya ñu sori yaama lal ñu bew ñooñe nga xamne dañu ma dëgmaloon kenn ku ci nekk di reylu di wanu jëm ci sama kaw waaye ñoom ñepp nga dakal ma leen lal ma leen xajiimuka sa aji ji raadin aji gërëm la xan ka walis yow faqbal yàlla na nga doole nangu sukkoo raxoo santam li wajhi lazi ngir jëmmi yàlla mi nga xamee ne min hubbihi ngir ak soppam yan saxu dana seey fii ka ci yow nu xoolaat baatub yan saxu boobu nu firee ko dana seey rek dañ cee topp ñi jot a firi téere bii ci wéne langue langgu ak langue arab bu dé ci langue arab mom nasaxa man na fi di sax afna jeexal na lasha naax saayal na su boba kon day jagati, waaye nasaxa nak lazim fi di rek ta bañu fi di firi bañu fi di firi ni war nga gis ko ci kay yi mu ne ko man sa surga bi day gërëm naa la lool sant la lool ba fa ngërëm ak cant yam kon ngir yàlla mi nga xamee ne dalaa sopp ba nga gënal ko ku may yow manit ma sopp la ba xeey ci yow ndax xam ni la yàlla soppe ngir jëm yàlla moomu may ma nangul sama ngërëm ak sama cant xati'atuhu ay ñaawteefam immahat far nañu anhu bàyyikoo ci moom baada tawbatin ci gannaaw ak tuub li baaxin jëm ci aju des lexoo kon ñeel na ko ta awuxun ak jublu at ta awuxu moo al alqasdu ilahi jëm ci moom xabadan mu ab jam mu ne ko sa surga bii day yàllaa ko baaxal ci sa daraja mu dellu ci boroomam tuubal ko dëgmal ko yàlla baaxe ko ci sa daraja di koy tàggaleek lépp luy xeetu ñaawteef tàggale ko lépp lu mu taamuwul ci moom def ko muy dëgg-dëggi ab jaamam ba mel nam gën a taamu ak jaamam mel na fekk na ñoom buñ tuddee seeni ñaawteef na nga ko daan dégg rek seeni tolluwaay ci yàlla mooy kawe kawe ba nga xam ne la ñuy tuddee ay ñaawteef bu doon ci nitu kese mu mel ne ay xeeti dara daraja xum jàppal alxaama ren ji yaa muxtaaru yow ki ñu tànn lillahi ngir yàlla xidmat yi sama liggéey alayka yal na dole nek ci yow man teral nak jammi yalla mi nga xamee ne bisi ci katana mak tawfiixam at sahe laay saxé fi ka ci yow du taxawat ci baatub at naxu joju biñ ko tegee faxala muy tanaxa bil makani muy aqama saxna ci barab bobé ko tanixa muy fahila muy firi li wax fër niki lek ba fër ana nag ku ko firee fariha bég na waaye mën am daa xool rek bu seetukaay ba nee wa tanixa ka fariha ittaxama xëy mu gaawantu bi daa wax ne tanixa te goo faxila day firi li fariha di firi maanaam di firi mbégte te fekk na waaye moom daa bëgg a wax ne soo ko tëggee tanixa mu tëggoo faxila ne fariha su boobaa day firi maanaam it taxama fër na ni ki lekk ba fër alxaama buñ ko taaraa noonu aljiwane ci ak teew dañ koy firee ren mi at moomee teew ci yooye jamono daa waxanteeg ngën ji mi def ne ko yàlla mi ma may ma dan rek dëgmal la geesuwuma leneen yàlla moom lay ñaan mu di la saxoo dolli teraang ak jàmm te lay ñaan nag yow ci sa bopp nga ma nangul sabab liggéey rawante na sama liggéeyu at mi muy ren ji bu dee da caa jublu at mam tollu woon xëy na xarajutu génn minal matrooki ca la ñu bàyyi billahi ci kàttanu yàlla wax daxoo rek wa bay ay te sama jaay la xoo ñel loolee ak jaay la lay sa yuf saxu kook defu ko firi bi ci kàttanu yàlla dafa bari yum jaayanteeg boromam ci bayiko mu ne nak yoy yep genna ca ba set ca wetch mal ne kon jaay ko dog na faaw ndax xamna ne may baxé ba lama ak mom ci bayiko lu yag yàgg duma ca jëmati mukk-mukk momit du jëm seeti ci man mom lolé mukk-mukk lolou luma yalla baxé la sama genn bi rabbi ci katan ak namelu sama borom maaka àndoon naag yow min qabli hak sashin ci njëkk hak sash wayan xoote dana jublu li xayri jëm ci kudul man laali ndax wii du caageenu jëm ci sama wàll mu wabbixun aji yedde ba aji tege yaraange ba tey day waxante ngën mi def ne ko génn gaa génnoon ànd ak yow te loola jiitu na atum haksas ràññeelul nag gan génn la waaye nee ko rek génn gaa génnoon ànd ak yow ci njëkk atum 1325 ci gàddaay gi génn googee yow laa ko àndal ci nammeelu sama boroom ak ndimbalam te gën na maa wóor ne lépp luy xeetu yaraange ak luy tege yaraange du jëm seeti ci man du jëm seeti ci mukk ci sama wàll feneen lay jëm ak ci ñeneen allahumma yow buur bi salli yàlla na nga dolli tedd nga wa sallim te yàlla na nga dolli wóolu wa barik te yàlla na nga dolli barke ala sayidna sunu sang wa mawlaana sunu kilifa muhammadin wa alihi ak ñoñam wa sahbihi ak ay sahabaam an yi jëlee ci man abadan faaw wa kutubte yalla nga doli bind la hoñal ko hadada hurufi hadhihi al amdahi limu arafi yi lay tag la datan muy amin yalla nga nangu ñaan ya baqi yow ki aji dess mu ne sun borom yow mi nga xamne do jeex mukk ma ngi lay ñaan nga wotuma dima saxo julil ci yonante bi kon wotuma dima mayal ak dolli yonante bi lepp luy xeyatu teranga ak jàmm ak barke dolli ko ci bopam ak mbokkam ya ak ya te nag tagg yi makoy tag nu araf yi tollu rek araf wu ci ne bindal ko ko muy banex moy mbégteem ak banexam ci sama tag yi na takko takku bare bare ni nga xamne mom la araf yi tag yi tollu araf wu ci ne ni limu ara fi tol rek nani banex yi bare di reye ni ci mom ngeen ji mindeef harful laami lii araful lam li rabbi ñeel sama borom xoroo sama genn ma xoli and ak sama dugg bi man silin ci ak kër bu fekke ne bindale wuñ fi ya suñ fi bindale ya nak muy bi man sili ci sama kër maxaa farna la ci ak jëkkam maa lépp loo xam ne xad mada yooyu na min ci rëng-rëngi sëñ bi mel na ni ràññeelut dugg gi mu wax ak génn gi gan dugg la ak gan génn la am nag ku doon firi téere bi wax ne tukki géej ga ak dellusi ga lay wax kooku dane sëñ bi daa bëgg wax ne sama dem ca géej ga ak sama dellusi lépp saa borooma moo ma yóbbu moo delloosi te it lépp loo xam ne tegoon na ma ko ci njëkk loolu ci xeeti rëng-rëngi ak ñàkk dal mbaa tartar mbaa ci sa njàqare faral na ma ko ba mu set wecc wecc lahu ñeel na ko ashukru ngërëm la aydan ba tey baada xamdin ci gannaaw cant mu xalladin guddi gu ñu béelal alal Mustafa ci kañu tànn xayril baraaya mi ngën ji mbindeef ya al kadi ku ñu gënal waxin wu demee nii sëriñ bi dana koy wax lool mooy ne yonante bi xéewal la gu yàlla xéewale ñëpp ñëpp waaye moom moo ci ëpple mu ne sunu boroom maa ngi koy sant cant gu amul fu muy yem cant gu ànd ak ngërëm lépp nag ci xewal gi nga xam ni xam naa ne ñëpp la ko xéewale waaye man maa ci ëpple yemuma cee kenn te mooy jëmm yonante bi ci boppam mooy xéewal gi sirtu mujjina habdan di ab jam li rabbi ñeel sama borom taala kawena mu khatiban aji waxante ak liman ñeel ka nga xamne fadluhu ganeelum badin aji feñ la la da zi tahaqqulin fa boromuk xellu yalla bima baxé ma dem ba doon deug deug jaamam maangi waxante ak jaamam bi nga xamne ni mu gëne ñëpp ñëpp day lu fés a ba képp ku am xel rek doo ko nattable jaamam boobu nga xam ne moom la gënale noonu ba ku amum xel ku ne doo nattable ne moo gën ñëpp ñëpp maa ngi waxanteeg jaamam boobu naa ko laqad di jaa akum laqad di jaa akum qad dikkal nanu madihan bir mu muy aji tagg lakum ñeel leen minallahi tukkee ci yàlla dil harshi kay borom aras al azimi yàlla mi aji màgg al mufaddili kay aji gënale maa ngi waxante ngën ji mindeef naa ko yow day yàlla dala tagg ci alquran ca mujug suratu tawba ci bam ne laqad jaakum rasulun min anfusikum mu ne ko nag bu la yàlla xasee tagg noonee keneen du mana tagati, a taggati ku yàlla xas tagg rek moom mbindeef du la mën a taggati tagg way yàlla ca yow laqad jaa dikk na fil qur'aani ci al maa loo xam ne dal lana tegtal nanu xalaa taqaddumika ci sa jiitu ga almu'til xataa'i kadi aju joxe may ga almukammili kay aji matal nu xoolaat ba xam almu'til xataa'il mukammil daa dellu ca mbaa dafa dellu ci taqaddumika bu delloo ci alxuraan moom lay gën yomba leeral maanaami mel na ne muy alquran mi tax ami ay may di matalaka mottuli mu ne yonante bi alquran mi nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yow andi na ci luy wane ne moo la jiital nga jiitu faaw faw ñépp rek topp ci sa gannaaw la anta yow allazi yaay ka nga xam ne ontiita joxeef na la xidman ca bu jëkk nubu watan ak yonante wa aadamu te aadam yan jël yi dana feeñ baynal maay ci diggante ndox wattiini ak ban loolu it dana koy wax lu bare bari mooy tag yonante bi ne ko bala yi tànn def la ngay ngën ci ab yonante jiitu gën yonante yépp ba noppi nag di mujj feeñ ci zahir booba aadama ci boppam yàlla da koo tën rek muy ndox ak ban defar ko ba mu jekk waaye defagu ci sax roo kon yow yaa jiitu yaa mujj loolu nag am na bu ko andi yonante bi ci boppam waxal ko boppam li kullin ñeel na kenn ku ne al akhyari ca tànneef ya fadlun ganeel wa rutbatun ak daraja wa ma kabni abdullah dir mi melne ne doomi abdullahi ja abdun ben jam la dal khalifa aji kawe ja mune yàlla bari na ay tanef ci minde fi dale ca yonante ya wàcc ci suuf waye amu ci ben jam bo xamne tollu nga di yonante bi tollu fa yalla yonante bi yalla ko tek famu ko tek jox ko ak daraja yo xamne joxuko keneen li kullin ñeel na képp ca sang ya jahun daraja wa hurmatun ak orma walakin na mustafa wa daraja ka tan al barri kay aji bax yaatali dana kawe sang yi neena bari nañu te sang bu ne yalla defal nako dara jaak orma tek ko ci kaw waye nak yonante bi mom dara ko yalla jox joxuko keneen orma jim ko joxit joxuko keneen tegufa ko tek dal tegu fa keneen la in ja ginnaane dem dikewon bil ayati ci ay kimtan ruslun ay yonante taqaddamu ñu jitu won nañu fanalo kon amé nañu bika sa daraja al ayati kimtan yoyé min zit tafadduli bayiko ci borom gëne ga manam yalla gi taxé ko ko sopp mu defal la ngëneel yalla moy al mufaddil moy al mutafaddil mu ne ko wat na ci yalla ne deug la yonante yalla jiitu won andi won nañu ay kimtan waye amul benn nattable ne kiimtaan yooyu yépp say kiimtaana dañ ko andi woon rek di la xàllal bala ngaa feeñ waaye